RTV Dakar yéen yi aboné abone leen gaaw bu leen fàtte bés close notification bi ndax mooy tax ngeen di jët sunuy vidéo jàngeen jëf. moo mm-hmm. tax di ko bàyyi xel baax na. Mm-hmm. ba moo tax. ni ki xam-xam moom yépp am njëriñ bu ca ñàkk njëriñ rek nit a ko jaddal waaye bu ca ëpp njëriñ nag mooy bi yàlla jox yonent bi ndax nit ci nit ñi man cee xame ñooy kan ak seen boroomay kan waaw dinaa ko faral di wax dinaa di wax ni boroom kër gën a wut dépense am tey borom kër borom kër gën wut dépense tey dara gënul di farata ci moom mu xamal doom yëmu jur ñooy kan boo ko deful fii fukki at réew mi dana takk du taxaw dana takk ndax di nga màggat sa morom màggat te ki nga jur mu am kattan xamul mooy kan ba muy taal réew mi daf koy bett ndax ñeneen a ko koy defloo waaw amul werante amul werante dinaa ko faral di wax xale yi ñoo gën a yeewu ndax seen jamono ci la yeewuti ëpp ba tax na dimbale leen ci la gën nekke farata boo fexewul ba ñu sopp la boo fexewul ba ñu miin la duñu la sopp boo fexewul ba ñu sopp la loo leen bu ñu génnee wetti ko dara nga ci mën bu ñu la miilul duñu la sopp bu ñu la sopp loo leen wax moo xam sëriñ nga dangay xëy sol sa laaf sol sa bolok lëkkaayoo sa sër ndax bër di dafay soog noppi nga woo leen yéen ñii yéen ñii yéen dëgër bopp yéen ñii nangam nangam yéen ñii mun de xamul woon li yéen ñii nangam nangam wax a wax ba doon ñu ni eh, waaye yow paa bi ak laafaam bu bon bi le eh, amul leneen amul leneen eh, amul leneen wala boog nga xam ni du sëriñ ci cadre yi nga bokk waaye fexe nga ba soppuñu la ndax miinuñu la ndax yow boole woo leen ci sa dimanche nga am nga sol sa pyjama teg ci robe de chambre et toog ak ndax cadre nga eh, attention hein. man am na yoo hein, discipline ah commencé wax ba àgg ñu ni eh, bi Bây giờ chắc والله mooy mujj waaye boo fexee ba ñu miin la dañu la sopp bu ñu la soppee loo wax ak ñoom dañu ko seet waaw te ñu dem ba ci seen âge nga xeeb leen fekk xam nañu ni yow waaw lu am solo la waaw lu am am solo la moo tax mag ñi principe yi ñu gën a gëm amna ci bu am solo al arif al arif man arafa bi zamanihi muqbilan ala shani bare na lu ko shel Hadj Malick bind lu mat a dégg la xam sa jamono farata la mat bu xamé jamanom te rax ci fulla ba ca war mat na bay mat na maître العارف من عرف بزمانه مقبلا على شأنه lu mat a bàyyi xel la te it daan na wax ni darul mafsada darul mafsada awla min jalbil maslaha ni ko mag ñi daan waxe darul mafsada awla min jalbil maslaha mais gannaaw ga nag ñu seetaat ko ñu seetaat ko fekk benn la ah fekk benn la dërul mafsada awla mi min jalbil maslaha waaw ñu seetaat ko gis ni benn la bu ci dikk te morom ma ñëwul adduna tukki ñu ni kon nag darul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha waaw kay taxaw suba li nga ragal ak li neex suba su ne ñu nuyoo si ci kër li nga ragal ak li neex bu jëkk nag mag ñi li bala nga song li neex li nga ragal mooy dàqal li nga ragal ba bi nga dellu see li neex fekkuloo ko fa foo jëm foofu la xikma bi nekk waaw dàqal li nga ragal dëdu tëdu tee nga xëcc li neex borom kër piir loolu lay def yombul nag waaw baqaar bu dàqee li mu ragal bu dellu see du fa fekk li baax waaye xam tënku xam tënku xam tënku mooy tax boo dóoree paaka ba rek mu teqali ko waaw bu ca borom kër àggul bu yóbboo rek sawi tëtëri moo tax arab yi léeb ni xaj bu bare solo ne moo ëpp yiw ca yàlla gaynde gu tayal xaj bu bare solo moo ëpp yiw ca yàlla gaynde gu teel ndax xaj bi bare solo du ñàkk lu muy indi xamuloon waaye gaynde gi teel moom du jóg fa mu ne mukk xaj a koy man fuuf ndax gaynde bu jógatul fa mu ne rek àdduna tukki wate mhm. dinaa di wax ni di góor gi daan wax ni till ga rey na gaynde ga mu ne gàcce la de waaye ñu bari dégguñu ko waaw <coughs> RTV Dakar yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw bu leen fàtte bés cloche notification bi ndax mooy tax ngeen di jot sunuy vidéo jàngeen ngeen jëf